waaw asalaamaaleykum maa ngi tudd Diary Camara euh, nekk euh, coordinatrice HPS HPS nag mooy euh, association bi nga xamante ni moom mooy yëngu ci xeex jàngoroy cancer mais surtout cancer yi nga xam ne mooy mooy yàpp jigéen ñi muy les cancers gynécologiques mais tey maa ngi présenté wu ci turu doomu benn gox bu ñuy wax Mbambara Alilo bokk ci quartier yi nga xamante ni ñoom lañu njëkk a sanc fii ci biir Thiès Euh, nga xam ne cimetière yi nga xamante ne euh, ku ne tëdd na fi ku ne tëdd na fi wàllu yi bu ne tëdd na fii donc ñu fay ñaanal suñu waajur yi ak suñu dëkkandoo yeeg ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi tëdd fii tey ñu ngi leen di def une pensée pieuse euh, ci bi nga xam ne mooy journée 8 mars bi nga xamante ni waa Mbambara dañ ko jóg muy pour une première pour di ko di sargal jigéen ñi. Ah, ñoom de dañu jàpp ne man marraine la mais man jàpp ma bopp marraine damaa jàpp ne man ak ñoom ñoo ànd di organiser bés bi ndaxte lu tax lii c'était c'était mon rêve. dama juddoo ci koñ bi màggee ci koñ bi yare ci koñ bi mais lu mel nii mosuñu ko am te chaque fois ngeen may gis yéen ñi may àndal waa presse bi di ko dox ci yeneen i gox di ko fa liggéey nag liggéey bu rafet mu nekkoon sama rêve tey xale yii di ko réaliser nii ñaa la plupart juddoo wuñ ci koñ bi dañ fee sëy si ñun ñi fi juddoo dañoo dem sëyi feneen ñoom ñu organiser wu jàppoo booloo ne dañuy organiser lii buñ ma tànnee ne ma yow la ñu tànn pour nga ñëw jëmmal suñu bés du ma ni marraine mais dama leen dama ciy ànd ak ñoom moo tax biñ ci biñ ma ñëwee seet si ma ma jiitu leen ci organisation bi tey ñu ñëw indi leen fi li nga xamante ni mooy consultation gratuite indi fi sage femme waa Maristop ñu nekk fi depuis ce matin léegi la ñu ñibbi dem ànd ak ñoom di liggéey ce matin mais aussi ñu wuti yeneen i partenaires yoo xamante ne ay partenaires ah, mën nañ ko wax autorité politique lañ ku ci mel ne Pape ñëw na jàpp ci li nga xamante ni moom mooy gox bi jox na leen financement xaalis boobu joxuñu leen ko pour ñu dugal ko ci 8 mars bi leen ko jox pour financer leen parce que Pape Latir tam mi ngi nekk ci benn association mouvement bu ñuy wax LAS l'association pour la solidarité moom dimbalee jigéen ñi rek moom moo ko tax a jóg fi ni toll nii donc je pense que ne ñooñu leen fi pour que leen parce que man maa leen waxoon ne bu ngeen sooboo ci liggéey liggéey te ku

parce que dama ne dama leen je tiens à assister journée te ku xam jaaree xam digganteem ak octobre xam digganteem ak mars ñaari weer yooyu waa Thiès jigéenu Thiès dañ ma ko jox ba lu ñu xewle bu ma ca nee demul ñu ne neexul moo tax tey man maa jàpp sama bés kon maanaam du ma marraine maa moom bés bi te taxawaay boobu loolaat laa taxawee. thème bi ma leen tànnal tey à part euh, kii bi nga xamante ni mooy cancer bi euh, consultation bi ak yooyu dañuy dem si ti nga xam ne mooy thème de l'année bi rek pour un monde digital ah. ah ñu wax li nga xamante ni mooy autonomisation inovation des femmes ñun ci tem boobu xam naa li joon ndax jigéen ñi kenn ku nekk fii nii mën nga yaa ngi manipuler WhatsApp mais est-ce que xam nga outil boobu lan la lay jëriñ est-ce que xam nga outil boobu noonu am na loo xam ne boo ko ci defee tey jii mën na la indil ay dérive mën na la yóbbu foo xam ne xamatoo ko te ñoom ñi ay femmes de développement lañu ñu ngi yëngu ci commerce bi ñoo kenn ku nekk boo jaratul ngay dem marché di fa lal wala ngay fay juuti wala ngay fay cantine sa buntu kër ngay toog nga jaay li ngay jaay fii ci sa WhatsApp jaay ko ci commerce li ñu commerce en ligne te defe naa ne ministre bi euh, innové na ko mais daf ñu cee fekk ñun bu ñu yàgg ñu ci yëngu jigéen ñëpp mën a manipuler portable kon jigéen ñëpp war nañoo mën a développer à travers ce outil muy digital bi. waaw euh, merci beaucoup Nancy question bu ma neex a ngi noonu man Diary Camara autorité politique boo mun ci doon wala autorité étatique boo mun ci doon ak notable boo mun ci doon man ci social rek laay dox may àndal. danga may gàddu gàdduwaale ñi nekk sama ginnaaw fii ma nekk nii am naa fi mbooloo foo ma dëkk fee ci cité Momar am naa fi mbooloo fa may liggéeyee am naa fi mbooloo beneen wàll bu may ne am naa ci mbooloo ndax jigéenu cees ñoo ma ñoo ma wóolu dénk ma seen bopp ngir sama liggéey kon ku bëgg bëgg ñëw ci man ah loolu alerte la de damaa danga may jàpp jàppale ma ñu nekk sama ginnaaw kon nag ñu jàppalee waa Mbambara jàppalee ñëpp koo xam ne groupement féminin ñu liggéey parce que autonomisation la ñu moom Euh, dooma may ma gërëm sama sama sama xuloowaale Babacar jee kenn nga ci man macha allah euh, kii activité moo ñu boole euh, ñu ñëw xëccoo activité bi ma mën ko loolu nag ci ci micro bi mu nangul ma ko ne ma foo nekk ma nekk fa Babacar yaa ñàkk ki ñaan maa ngi lay gërëm di gërëm naasi bintu maa fii chéri yi macha allah xale yi dañ may topp fu ne fu ñu demee ci activité fu ñu ma gisee seen yaram day daw dañ naan ma ñàpp yàlla na seen jàmm yàgg maa ngi remercier tout le monde